manifestation yi ñu nemmeeku temps yi ci biir réew mi jur na ay jafe-jafe yu bari rawatina ci station yi lu ñu mën a xayma ci juróomi fukki station la yàkk mu nekk li ñuy indil ay gàllankoor yu bari gis nga loolu noonu ñuy def noonu xam nga lu mu mën a indi ci distribution maanaam dina dina dina dina jaxase njaayum essence jaxase njaayum gaz ci dëkk bi ba nga xamante ne tukki bi nu mu waroon doxe dootu nu mën a doxe parce que ku wax dem ak dikk wax njaayu essence ak gasoil yóbbu itamit ay agent yu bëri chômage technique maanaam taxawloo temb seeni activité fukki nit ak juróom yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci station waxuma sax maanaam ñi nga xamante ne euh, dañ ci wéeru xëyuñu fa waaye ca la ñu wéeru mais fukki nit rek yi nga xamante ne ils sont fukk ak juróom ñoo xamante ne permanent station boo ko multiplier par cinquante nga xool lu muy def te ñooñu jàpp naa ñàkk nañ seen liggéey actuellement daal li gën a wóor mooy ñooñu ñoom xam naa ne moom dañuy toog chômage technique. Ibrahima Fall di yangu ci boobule secteur di alerter ndaw yi ci risque yi nga xamante ni saccage station yi mën na ko indi. yàq bu jéggi dayo ak jël marchandise ba fa nekkoon loolu nag fi mu toll ñu ngi toll ci di ko xayma parce que ñu ngi wër di xool. loolu lépp nan la toll waaye nag yàq bari na de bari na lool te jàpp naa ne weesu na un milliard cent deux millions yi nga xamante ne ñàkkoon nañ ko yaa de cela at ci gannaaw. mu nekk situation bi nga xamante ni ñoo ngi koy déplorer di ñaax itamit nguur gi mu jàppale ndaw yi yangu ci bile secteur ba rekk ñu mën a maintenir seen liggéey di sàkku ci manifestant yi ñu bàyyi xel danger yi nga xamante ni ñoo nekk ci taal station